fa gis dara donc Fatou nag vraiment en gros ñun nouvelle législature bi soo bëggee ñu dem fa. ak ànd beesal Sénégal lii lañ fa bëgg a yóbbu. loolu moo euh, ngeen fa bëgg a yóbbu alors nga ànd ak ànd beesal Sénégal. Mhm. te bokkoon Benno Bokk Yaakaar wax nga ko mhm. sànq def nga fa 12 ans lan moo tax nga jógee Benno. lu tax ma jógee Benno rek mooy euh, je pense que. avec Benno j'ai été avec euh, la coalition à travers le président Macky Sall avec loyauté et constance et képp ku ma mënti seddal xam nga ni yow sa bopp euh, man li ma war def naa ko ma am si lu ma neex ma am si lu ma naqari kenn mësu ko xam maintenant nag dans en politique wala dans la vie foo savoir euh, assumer ses choix et il savoir aussi des fois euh, consommer la rupture mhm. xool leneen parce que quand même nag euh, man nekk naa si euh, ba jóge fa macha allah du lenn lu ñaaw li nga xam ni sax moo tax ma jóge fa mhm. mais daf fekkee ne dama bëgg a tamit xool leneen lu nga xam ne man lii moom laa gën a gis sama bopp. Mm. parce que wax naa la ko li tax ma ànd ànd beesal Sénégal mooy avec le président Abdoulaye Sylla nous avons une vision commune pour le Sénégal. Mm-hmm. mooy comment vraiment améliorer les conditions de vie des Sénégalais te nag euh, Fatou ñu fekk ko si parce que Abdoulaye Sylla su ma la nee euh, à travers son groupe il emploi plus de deux mille euh, pour il deux mille nit. Mm-hmm. emploi direct et indirect. Mm-hmm. à travers lui sa personne il euh, mun naa wax au plan social. Mhm. day dimbali doomu aadama yi soo demee jam ñaajoo Abdoulaye Sylla dafa indi si dialyse la fa def nga dem zone de captage dafa yóbbu si si si si kii ba dialyse la fa la fa la yóbbu. Mhm. Euh, ma jox la benn exemple bu ndaw Abdoulaye Sylla day jël ay école di ko may jeunesse su Sénégal. ko nga xam ne xaarul état pour faire fonctionner. son économie xaarul état pour renforcer mun naa wax l'économie sénégalaise xaarul état pour dimbali doomu aadama yi. xaarul hmm. état pour dem par exemple si kilifa diine bu nekk dimbali la dem si jàngu bi dimbali la ba pare mun naa wax tey euh, sooy xool bay xool euh, dafa nekk nit bi nga xam ne lépp lu muy def soo gisee da ngay toog ñun la ñun mënuñu teg suñu curseur c'est Abdoulaye Sylla c'est parce que lépp lu muy def dafay wax ni moom da ko bëgg a def en toute discrétion dans la sobriété. moom sax léegi ko en réalité. visage koy doog a gis. waaw si euh, temps yi bu yàggul. parce que moom dafa ni lépp lu muy def jaaduwul mu koy wane. moom lépp lu muy def da koy hmm. def pour askanam. donc ki nga xam ne moom mi ngi participer au développement de ce en en embauchant des milliers de jeunes donc kooku foog naa ni soo ñëwee ànd ak moom pour liggéey xaarul. jël réew wala laajte réew pour liggéeyal Sénégal mais moom dafay jël ay initiative de développement économique. Mhm. di ko renforcer vraiment euh, kooku foog naa ni dafay yomb lool tamit nga ànd ak moom. ba may njëkk a toog moom li ma gën a séduire sama discussion dafa ma ni Fatoumata dëgg la nous nous sommes des champions au plan économique mais dama bëgg créer d' autres économique ba nga xam ne ñun le Sénégal va plus dépendre. de de la dette extérieure. Mm-hmm. mun nañ toog ba ces champions ñu créé leen ba nga xam ne tey sénégalais Sénégal mun na dem ba suy leb mu leb ces champions économiques yi fi nekk. ba ñu jéggaan yi dem feneen. mu ne ma tey suñu demee nga gis jaaykatu ki nga xam ne dafa am un petit commerce. Mm. parce que nga dem euh, Grand Yoff xam nga les réalités euh, économique locales. Mm-hmm. bokkut ak fenn da ngay gis ñu su bëri ñu ngi marché ñu ngi jaay seen ñu ngi jaay ndékki ñu ngi jaay reer mu ne kii di jaay ndékki nga jël ko permettre ko mu am accès facile au financement. taux bi ñu wàññi ko nga jàppale ko mu dem ba autonom am une autonomie économique financière kooku soo demee mun na dem ba benn moment dina am une chaîne. kooku chaine boobu su ko amee dina jël ñeneen su jëlee ñeneen loolu mooy dem vraiment tey ba nga xam ne dina indi koom-koom suñu réew donc kooku nga xam ne donc loolu moo ko ñor ma gis nous avons cette même vision donc ma ne ah mais pourquoi pas ànd ak ki nga xam ne tamit nag ku bees la. ki nga xam ni mën naa ànd ak moom ba nga xam ni ce sera vraiment une nouvelle ère ensemble ñu dem pour bâtir ce cher Sénégal. mais am na loola naqari bennoo ba tax nga jóge fa li nga wax ci Ablaye Sylla c'est vrai. Euh, waaw c'est séduisant na mhm. xëcc ku nekk ci politique. Mhm. bu fekkee sa njëriñu réew moo la ñor. Mhm. mais est-ce que par exemple ni yëf yi demee woon ci présidentielle bi bokk na ci li la naqari parce que y a eu frustration yu juddu ci bennoo te euh, euh, ñun ñëpp peut-être ñun ñëpp lu dañoo toog le président Macky Sall ñu ñun dañuy jàppale le candidat Amadou ñun dañ ko jàppale. Hmm. liggéey comme li may wax sooy ànd ak ñi da ngay ànd ak moom ci constance. ba si ci àndee liggéey on a vu du sabotage sabotage boobu mu amee c'est venu de notre propre camp maintenant loolu am tamit sa a frustré plus d'un hmm. que loolu tamit dafa doon li nga xam ne tamit ay kilifa suñuy ànd ay magum jëm di ànd. Hmm. mu am ay taxawaay yi nga xam ne ñun nekk ñu ñëpp ñu nekk si benn tout dans une même coalition ngay toog ñu diviser wu ñii suñu génnee xas le candidat ñii suñu génnee wax. donc loolu dafay doon li nga xam ne soo nekkee si benn euh, bërëb bi nga xam ne tamit hmm. yow famille ba sa bopp jubóowuñu mieux vaut ñun nga xam ne nous sommes des alliés ouais. chefs de parti très autonomes nous sommes libres aussi de fair notre propre constat hmm. demal suñu bopp maintenant nag man euh, je te je, je toujours vraiment euh, mën naa wax loyal au hmm. président Macky Sall parce que nit ku baax la man xamul ma ko lenn. Mm. nit ku baax la te moom moo ñu jàppale leen ko mosu ñëw nañ bàyyi leen ko mais maintenant nag ce qui s'est passé autour de Benno man personnellement. Mm. après tey laa si doog am occasion wax. dama koy dénoncer parce que rafetlu ma ko woon. ba ma fa jógee le candidat Amadou Ba fa laa ko gëjee dégg. aw ma ak moom benn attache. Mm. benn wax benn vraiment lenn la nga xam ne tamit lu ma koy waxal lu bon ak lu ñaaw mais fa laa ko gëjee dégg c'était les élections pare na. pare nañ si man j'ai ma vie politique à gérer okay. j'ai mes euh, mun naa wax euh, euh, mes principes en politique mes valeur mm. et actuellement li ma gis Benno ak cette division man personnellement je, non, vois, je, je, je ne me vois plus dans dans dans dans la coalition Benno Bokk Yaakaar mm. alors tey coalition yi li ñu ko tëggee ci opposition bi ban jàngat nga ci def en tant que acteur gis na ñu yaakaarul woon ne dinañu ànd ñu mujjee ànd mm-hmm.